bisimila ñàkko kaaraange gi lé ah doy na waar termine yéene kaa ne ñàkko kaaraange gi day waaw Sénégal lañ ca fanweer ak ñeenteelu place ba mar di Italie dama ne ñu raw allahu akbar waaye est nag du ñu indiwaat ku rey ñu rey la maanaam benn mort rek parce que da suur lay ku rey ñu rey la le quotidien yéene kaa ne waaye deew Cheikh Niass bi ah dee goo xam ne day dana jafe ngir ñu suul ko de lool parce que njabootug Cheikh Niass googee ah nee nañu autopsie musta am laa la wax te moo ni ñu ngi comme loo ne autopsie njabootu Cheikh Niass gi ne c'est pas vrai c'est amul seen doom ji la di Cheikh kenn mësta laal kon yaramam bi laa wax parce jabaram ci boppam moom moo ne bu ko kenn laal ñu ñuy gëmloo ne amoon na waaw dee naturel la ñeg ñeg ñeg patati patata ba dem sarax ba naan ñu ay crise hyperglycémie c'est faux loolee amul nijaayu Cheikh Niass moomee di Assane Thiam ci yéen kaay gi waaw nee ministre de l'intérieur Antoine Diome ak ministre de la justice Malick a ubbi ab enquête laa la wax fa ci boppam ñoom ñoo cay wax waaye du ñun réew mi quotidien daal du ñuy expliquer coow li nan la demee l'observateur daal du ñuy defal enquête ci carrière bu doy waar lii nga xam ne commissaire Amé Bachir Ndiaye daal dina koy def ah, waa ji ndekete jaar na ci armée bi turki jam affecté woon nañ ko Casamance duggam ci biir police bam fii menacé ne dana démissionné ca jemi ga yéen a kaay groupe Futurs waaye nag boo sàgganee danañu yëkkati ay daan lal ko ci direct news nee na inondation yi day waaw gis nga ca Kër Massar ke nee ma unité 3 musiba mbaa ba kumba bi mooy ndàmpaay moo fa jur coow mbir ma benn yéex na ñaar ak le président Macky Sall waxoon yëpp ndàmpaay yooyee ca unité 3 ca Kër Massar dama ni na le tee moo yéene xeex ak wàllum inondation yooyee ca banlieue ba waaw borom yi xam-xam di ay expert de ak assainissement ña wane na kon yoon wax ca jamono jooje njëg yaa ngi de njëg yaa nga xam ne na gaaw ngir dund gi ñu wàññi loo ëpp kon junni ak juróomi téeméer ci ay commerçant teg nañ leen loxo laa la wax waaw waaw alaaji Malick Gakou day njiital grand parti waaw ci wal fajiri ak 24 heures ci lu jëm nag ci wàllum dund seer gi lé nee nañu dada dafa doy askan wi ci boppam kon ndool nañu sonn nañu Malick Gakou yamu ca parce que waa ji nee na lii nag day mandargaal ne gis nga Macky Sall mi lé daal dinay lajj laa la wax dafa échoué dëgg la jiital grand parti ne nguur gi nag fi mu nekk nii la mu war a jublu daal mooy assainir suñu wàllum koppar gi lée finance publique yi waaw nga xam ne dara yàq ko dul yorin gu bonu Macky Sall jaxat-jaxatee askan wi yàq xaalis bi lée indi fi wàllum ger ay tojaange yoo xam ne saay bu ñu xëyee muy gën di am ci nguur gi lée Malick Gakou ñoo ma àndal day ne pas sort yi rek mais doy na firnde 24 heures yéene kaa ne xoolal ma wàllu njàng meeg njàngale mi lé waaw gouvernement mobilisation bi ñu doon def xeex ak yelleefu liggéeykat ya waaw wàccee seen loxo ci kanamu patronat bi lée est-ce que syndicalistes yi wàccuñu le témoin demal ma ca kaw gële béykat ya waaw fi mu nekk nii nag na nañoo njàqare gis te xalaat nañ ne nawet bii mardi taali te xiif leen di yoot la sabab lu ni mel nag mooy benn engrais amu fa ñaar jiw gi doyul ñett taw baa nga ne lée daal dinay allahu akbar ak li nit ñi di dund yëpp libération yéene na am na ab réew gars yi di fay en réalité loolu mënta ne si agent de police bi lée mën di ko njaay six cent mille la doon laal par candidat gendarmerie ko teg loxo de Aristide Ba ak Samba Ndéla Faye agent de sûreté caamaaxam nekk membre cartel bi trois cent jàpp huit cent lañ doon laal Pierre Ngor Sarr alias Aziz Sarr waa ji ndekete xoolal mooy punkal mi moo jiite gars ay faux test covid 19 lañ doon jox candidat yi lée nga xam ne daal la ñuy fay yëpp ci ay quatre millions lay toll Aliou Sané bu Y'en a marre waaw ginnaaw événement yi fi amoon février ak mars ak xalif général ak murit yi tànk yam te doxoon yëpp ñun daal dañoo jàpp ne léegi suñuy loxo dañ koo takk daal ngir Macky Sall jàpp ñu di ñu dóor te nag mii il faut ñu jàkkaarloog moom parce que nag li ñu suñ kilifa diine santoon yëpp respecté nañu ko te sénégalais yi bëree bëri de léegi nag maa ngi woo waa m ak force yëpp ñu ko xeex ndax lii nag farata la Macky Sall daal fi mu nekk a jël jamono jooje politiciens yaa ngay préparé élection locale ya Serigne Mboup day waaw moom day kaw la ñëpp nga jëm di ko jàppale ji a la wax Serigne Djili Mbacké a Daaru Xurdoos ci critique yéene kaay nee xel xalaatul sax ñuy jox commune bi allié yi APS ak AFP ak yooyu di leen jox département bi xel xalaatu ko laa la wax direct news de parti démocratique sénégalais ak seen njaayum carte yi est ngir tànn seeni candidat la mujjee mar d' danañu xeex te képp koo xam ne gis nañ la ngay ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar danañu yëkkati ay daan sa kaw de ministre Moussa Baldé nee na man day responsable u Benno Bokk Yaakaar yi rek laay déglu sur fulu total moo am ci Benno Bokk Yaakaar laa wax te gis nga baaka <laughs> ñaari boor la seen liste bi tëddee fi mu nekk nii laa wax aha waaw moo tax am na ci ay punkal yoo xam ne ñi ngi jël alal ji di ko dugal ci biir nit ñi laa la wax ngir ñu tànn leen Macky Sall na gi ne même bu dee sax ku nekk ngi bi daa laax dara leeragul laa la wax ci Macky rek la dépendre last Parcelles Assainies day affaire waaw nee nañ ko ñëw baax na ba mu des koon Moussa Sy tout sauf Moussa Sy laa la wax enquête yéene kaay ne élection locale yi day jamonooy technopoliticiens yi la ñu ne ndeysaan xoolal ma ñoom Amadou Hott Ismaïla Madior Fall ñoom Assome Diatta ñoom Omar Boun Khattab Sylla gaa ñoo xam ne ay technocrate lañ woon ñu respecté leen lool ñu daal di soobu ci politique lé safatuñ yàpp safatuñ jën bëgg a république Demba Kandji waaw daal dinay remplacer na kii di Aline Badara Cissé moo maître tribune yéene kaay ne Demba Kandji est dana mën la maître Aline Badara Cissé mënoon source aane Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké day demoon na wa jóge Serigne Bass ne ko maa fi waroon a jiitu waaye ca mujj tedd jéem a yónni woon Mauritanie kon ci ab la ma a xamal mbooloo mi mooy soxna ay dëmboo mi la jigéen la waaye jàmbaar ne tek seex ak ñëpp jàmm rawatina nag waa kër Serigne Touba te a seede jigéen ji di Aïda Mbodj ba ca présidentielle ba moo njëkka yeenu candidature doomam ji yéeni kaay daaw da caamine Souleymane Ndéné Ndiaye day daa mer ba futu laa la wax mer waaw parce que Fallou Kébé moom la ñu fal léegi président ay Saloum comité boo xam ne ko sojaanee ko jiite ñoo fal waa ji de nee na mer <laughs> waaye Souleymane Ndéné de ak lu mu mer mer mer mer mer mer mer te mer le wuñu suñu pétrole bi mer gi des na parce que suul gaz du ko tere xañ te troisième mandat dañ ko f tere rek boo paree ma ne la alaaji jaajëf El Hadj Ahmed euh, Aidara kon nag Yacine